moom la ñuy joxe wàllu suuf yi ci région bu ndakaaru ca diwaan bu Thiès jàpp diwaan bu Saint-Louis Vox Populi yi teg loxoom nag ci fukki barab ak juróom-ñaar yi nga xam ne rek dagga xolpa njëbeen gànjoola Pointe Sarène pôle urbain bu jaksaaw Bambilor Déni Biram Daw fépp nag jomaay ma ngay ñu daal di nag lu jëm ci coowal suuf gi nga xam ne rek judd na fa jamono ji ngir jàmm ak dal mën a am ci réew Sénégal directeur bu Descos di àddu ci biir yëglekaay bi xam ne ni nag jamono ji amagut benn démolition boo xam ne rek amal nañu ko ñii nga xam ne nag ñoo di lébu yi jamono joojee nag di sàkk ñu jébbal leen seen suuf si nga xam ne rek moom la ñu tegoon loxo ca aéroport bu Yoff ak ca bande verte Les Échos yëglekaay ba tey àddu moom it jëmale ci coowal gi nga xam ne rek am na ci corniche bi yéenekaay bi ne jomaay ma nga cay indi ay blocage jël na ay mesures nag ngir ñu daal di dakkal ci nu mu gën a gaawee nañu doon caxat-caxatee nag suuf si nga xam ne moo nekk fii ci Ndakaaru ña ngay xam ne daañu ko taxawal ngir càmbar dossier yi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu wi ci enquête yëglekaay la ñuy àddu jëmale ak lu jëm ci tabax gi nga xam ne rek ñu ngi ko doon amal ci littoral bi yéenekaay bi ne Jomaay Fay jamono ji nag ma ngay toj lépp nag amul benn service de l'État boo xam ne rek jot na ay xibaar jëm ci dogal googee nga xam ne rek njiitu réew mi jël na ko ci corniche bi ci biir yëglekaay bi ab haut fonctionnaire nag ma ngay xam ne ni lu nu mel nag kenn xamut lu mu doon dafa mel ne ci ab club la ñu nekk dangay xëy rek gis ñu daal di jël ay mesures teg ci ab déclaration Anne Diouga di ab architecte nag dogal yu ni mel doon nañ ko xaar waaye nag nañu fexe nag ba bu mu am kumba am ndey kumba amul ndey nañu ca bokk ñëpp yemale le quotidien des ba tey ci procédure yi nga xam ne rek da caa taqe nag jamono ji ñu ngi ci moo ca jot a juddu yéenekaay bi ne président Diomaye nag ma ngay marqué ay empreinte moom njiitu réew mi nag sàkku nañu daal di dakkal yi nga xam ne rek moom lañ doon amalee ci digg diggante ndakaaru Thiès jàpp Mbour ak Saint-Louis le temps mooy yëglekaay na njiitu mi kay fi mu toll ni nag ma ngay secourir li nga xam ne rek moo di littoral bi bés bi le jour feelu ko ne cent mille problème jamono ci nag mi ngi ci taabal ji ñu war koo lijjanti te lépp ci coowal suuf la tënku duudu ndooy di xam ne nag moom njiitu réew mi amul benn pouvoir ngir sàkk ñu di dakkal nag lu jëm ci tabax yi ñuy amal ci corniche bi libération addu jëmale tey ji nag ci lu soxal contrat d'armement bi nga xam ne rek moom lañ fi doon tudd yéenekaay bi nag dellu suwaat ci ab virement boo xam ne rek toll na ci 3 milliards yoo xam ne rek nag def nañ ko ci wàllu jënd meek njaay mi nag yéene kaay bi àdduna jëmale nag ci mbuxum yi nga xam ne rek moo ci daal di tënku jëm ci transfert d'argent yi nga xam ne rek amal nañ ko biti réew loolee lépp yëgle bi amal na ci ab enquête bu yaatoo yaatu ñeel ab boo xam ne rek daat nañ koy transmettre ñii di waa parquet bi yër leen boobee yëgle kaay direct news nag xëyee tey ci tukki ne meeku boo xam ne rek président Bassirou Diomaye Faye mi ngi ko war a amalee ca Guinée Bissau yéene kaay bi ne Sénégal ak Guinée Bissau ñaari dëkk la yoo xam ne rek dañoo am ay jëflante yu am solo ci wàllu coopération waral ba ba le soleil yëglekaay dellu suwaat ci visite de travail bi nga xam ne rek président Bassirou Diomaye Faye war na koo amalee tey jii ca Bissau dana bokk ca waxtaan wa nag lu jëm ci wàllu napp gi wàllu culture diplomatie ak li nga xam ne rek moo di axe bi jëm ci diggante ndakaaru jàpp Bissau tribune yëglekaay tey ji ci accident yi nag ca xëy daal di amal ab taxaw seetlu fukki doomi aadama ak juróom-ñeent yoo xam ne rek ñàkk nañu seen bakkan juróom-benn fukki jële ci ay gaañu ci diggante ñetti fan fii ci réew Sénégal altinay démb ji nag ab tata bu ligne 32 nag fii ci pont Hann bi mu di accident boo xam ne rek benn nit ñàkk na ci bakkanam ñaar fukk ak ñett jëli ci ay gaañu-gaañu fukk ya nekk ci état bu doy waar wax ci la le quotidien mi nga xam ne rek dellu siwaat na ci ab boo xam ne rek dañu koo tiir ab bal foofee ca Sandiara loolee tax na ba askan yëpp daal di sëngeem jamono ci nag ku ñuy wax pa allemand moo tiire ci kaw benn élève ginnaaw bi mu ko jaawalee kub sàcc waral ba élève yëpp nag daal di jug dem song ji nag kërub militaire boobee nga xam ne rek dafa retraité daal di koy caxat caxate yéene kaay bi ne moom kay da doon dimbaliwaate rek